mooy woote bi nga xam ne moo moo ñuy dundal mooy woote bi nga xam ne nii mooy li sëriñ Saliou doon woote ngir liggéey loo taalibe fii ngir ñu mën a jariñu àdduna ak àllaaxira mu wax ne nag lépp lu ngeen bëgg fas leen ko ci liggéey bii te muy ñaan ngeen fasal ko ci ndax lii ngeen nekk rek ak lii ngeen wuy si mooy li yàlla wax ne mooy liy dundal nit mooy topp yàlla topp yonente bi te loolu la fi Serigne Touba sampoon loolu la Serigne Saliou doon dundal Serigne bii ci foofu rek la teg tànkam mu wax ne nag kon mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal tey ñaan ngeen fasal ko ci liggéey bii te xam ne lépp lu ci waay fas sunu borom mën na ko jàppandal ci daraje sëriñ Saliou mu wax ne nag nañ jox sëriñ Bassirou mu àggale kàddu yi ñu doon ko ubbil muy kaddu cant ak kaddu ngërëm rek jëm ci mboolem taalibe yi ak kaddu ñaan ak kaddu yu bëgg ngeen fasal ko ci seen liggéey bi seen ñaq yi ba li ko li sunu ñu bëgg ci moom lépp sunu borom defal ko ko ba defal ñu lu kawe njort yàlla yàggal ko fi lool defal ko tawféex ba lim yéene liggéeyal sëriñ Saliou yéene ko liggéey Cheikh Ahmadou bàmba lépp yàlla mottali ko ci daraje sëriñ Touba amiin bismillahi bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa xadimihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu ku ci ne fu mu mën a nekk di leen ziyaare di yëkkati ay kàddu di ko wax ci ndigalul e, sëriñ bi e, nga xam ne sunu wasila sunu sëriñ jëm ci sunu boroom muy cheikh muhammadul murtada mii moom sëriñ saaliw e, di ñaan yàlla sunu boroom mu guddal fanam lool wéral ko lool tawfiixal ko ci yoon wii mu soobu muy liggéeyal ndona loolu nga xam ne moom la fi fekk jële ko ci ay waajuram mu jële ko ci cheikhul xadim bu loolu weesoo euh, faaw ñu tudd yi nga xam ne ay xew-xew la yu fi jàll mooy xam ngeen ñenn ci mbokki taalib yi nga xam ne dañ daan ànd ak ñun liggéey bi ku mel ni e, sëñ Moustapha moomu ñu wax sëñ Moustapha Boy ku mel ni sëñ e, Gora Ngom xel kom baas ku mel ni waajuru sëñ Cheikh Ndiaye mii mooy sëñ Cheikh njaay moom it ak ñeneen ñi nga xam ne xëy na jotaay bi laa du tudd ñëpp waaye yéene nañ ko ñu leen di ñaanal yàlla sunu boroom yërmande ñu dajeek tawféexi sëriñ Touba fa ñu ne Eh, yóbbaale fa ay ngërëm yu am solo nga xam nga sunu boroom wax na ko ci alquranul karim ñi nga xam ne dañuy jihaat ci yoon sunu boroom ba yàlla dogal gisatuñ leen bu leen defe ne eh, dañoo faatu faatu waaye ñi ngi ci ay xéewal yoo xam ne sax dañuy toog ba naan cey ñoom day ñoom fañ ne dañ koy yéene ñi fi ne ñi fi ne tam di di di doxal yërmande seen diggante mu mel ni que ñoom ña ngi ci ay teraanga yu màgg ndax ci ci yoonu baax lañ newoon yoonu lislaam jaare ko ci keppaaru cheikhul xadim si yooyu weesoo euh, bala ñoo dugg ci jëmmi tool yi ñu wax dara ci li xew ci jamono rek mooy xam nga boo jiitee mbooloo loolu yàlla sunu borom moo am ñum ko teg ñu tegoo ko bu amee ay xew-xew yu xew euh, dana baax nga eh, wan mbooloo mi ne loola yëg nga ko eh, yaa ngi koy toppatoo la ca xew eh, faaw nga joxe sa kàddu joxe si kàddu lislaam kàddu kilifa gu jiite njaboot looloo tax bu ngeen xoolee xew-xew yi nga xam ne xew na ci réew mi bu yàggul mooy ñenn ci ndaw ñi ñi nga xam ne dañuy faral di tukki di ko jaar ci ay yoon yoo xam ne mën naa am ñu loru ca ñooñu Euh, sëñ bi mu ngi massaw yi ci xew waaye tam euh, mi ngi soññi ndaw ñi ci ñu góorgóorlu ci diggante ak seen boroom ci ci ngëm ne ñu nañu gëm yàlla bu baax nañ nangoo liggéey bu baax am na ci bind yi boo ci demee dañ am foo xam ne sëñ Tuubaa da daan soññee daal ne na ngeen jaamu yàlla bu baax waaye da cee dolli woon na ngeen liggéey daal di ciy teg bu baax daal ne boo gisee ma teg ci bu baax ndax yooyu ma digle ci jaamu yàlla boo liggéey bu baax doo ko man kon ñaa yooyu sëñ bi mi ngi ciy soññee di di ko feddali te nit ñi tam nañu gëm dogalu sunu boroom ak li nga xam ne moom la àtte yàlla sunu boroom moom moo àtte jamono bu ngeen xoolee ci diine kenn ku ne buy ñëw àdduna e, sunu boroom am na lu mu dogal ci moom am na lu mu dogal ci sabab yi yoo xam ne day sabab lu am ko yoo xam ne day sabab lu du ko am waaye lépp ci ndigalal yàlla lay dox ak ci dogalam nit ki nag moom du xam lépp du ko ràññee waaye sañ naa topp ndigal ya lu ci yàlla rëdd ci ci ci moom mu xam ne eh, lii la yàlla rëdd ci moom ndax yàlla may na doomu aadama xel may na ko ay pexe lii nga xam ne bëgg naa cee ñëw tuuti ñu koy waxtaane mooy lii ñu doon def fii tey tàmbulee ca ci sëriñ saaliw moom mii mu ñëw di ko dundal loolu ay pexe la yoo xam ne tey jii bu amoon ñu ko def xëy na mën naa wuutu euh, génn boobu nga xam ne moom lañuy génn lu toll ni juróomi nit wala fukki nit jéem a toppatoo foo xam ne dañ koy bokk di ko di ko defar di fa xidma di fa liggéeyal yàlla di fa liggéeyal seen bopp di fa amee di fa am lu jëm ci ci seen bopp ak ak yeneen doomu aadama yi ñu ci yàlla dogal loolu bu sëñ bi dee def yu mel nii loolu aw wane yoon euh, wane yoon la tam maanaam war nañoo xam ne loolu da ci wane aw yoon tamit ñu jàngale ko ci ndax doomu aadama yàlla da ko teral bokk na ci teraanga yi mu ko defal li ci ëpp doole mooy xel mi mu ko jox moom yàlla bi waxee teral naa doomu aadama waaye xel la ko wuutaleeg yeneen mbindeef yi xel nag li muy jëriñ mooy def ay pexe pexe yu dagan te pexe yu dagan yi nga xam ne dana maye dara te nit ki du ci loru lu yaatu la lu bari la rawe rawatina foo xam ne espace am na suuf am na ndox am na daanaka ay pexe rek lay laaj boo ko defee ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk tamit euh, wàllum àdduna ñooy gunge borom pexe yi ñoomit ñu leen di soññ ñu jàppale ñooñu te ñu xam ne àdduna moo bindoo noonu ndax jamono dafa mettee fépp yàlla wax na ko bu yàgg ci nattu yi nee woon na dinaa nattu nit ñi ci di leen ragalloo dara léeg-léeg léeg xiif léeg-léeg ci wàllu bakkan yi dégg nga léeg-léeg meññeent waaye yooyu yëpp ki ko nangoo dékku muñ ko sunu boroom lim ci wax mooy wa bashiri sabirin ko nanga nga na nga bégal way way muñ yi bégalug yàlla nag ak yonente bi ci woy muñ loolu ku ne xam na ne mooy mooy texe kon nañ ko jàppe noonu te xam ne àdduna moo demee noonu kon li ci xew lépp yëg na ko mi ngi koy bàyyi xel kilifa yow ay kilifaam tam jamono yi weesu wax nañ ci waaye ginnaaw wax nañ ci nag kàddu yañ ci wax moom da ci dut mën a tegaat lu bari lu dul daal soññi mbooloo mi ndax xam nañ ne nit ñi dañoo dëgmal Serigne Saliou nit ñi dañ koo dëgmal kon dana baax bu ñu yeggee ci mel nii mu mu mu soññi leen teg leen ci aw yoon wax leen noo xam bu ñu ko defee da dana baax ci ñoom bu loolu weesoo eh, ñu ñëw ci eh, li ñu dajale fii tey loolu dafa bokk ci bunt yi ñuy wax eh, liggéey ngir jëmmi yàlla mooy ñaq ñu koy wax xidma am na ñoo xam ne dañ koy tuddee xidma am na ci ñoo xam ne sax baat bi dëgg-dëgg euh, euh, dañ koy wax waaye duñ ko xam ba egg na sax bu ñu nuyoon te sax dañuy laaj seen moroom na ko xid naka xidma yi loolu muy loo xam ne eh, waxtaane woon nañ ko ci jamono yu weesu rawatina ci gàmmo gi di ko di ñu ñëw nag foofa kon mën nañ ko tuddee waxtaanu théorie la waaye pratique baa ngi nii wane aw yoon la euh, xidma nag niñ ko xamee lu cosaan la ci yoonu murit cosaan la ci yoonu murit mu bokk ci kenn yi nga xam ne dégg nga yoon wi ci la taxaw bokk ci kenn yi nga xam ne day day dundal buumu jokkoo gi nga xam ne tam dafa nekk diggante sëriñ bi ak ak ay taalubeem ah, boo gisee lii nga xam ne e, bi yoonu murit sosoo ba léegi e, def nañ ko ci àdduna mboolem fu taalube mën a nekk ci biir réew ak ci bitim réew loolu kon jàngal la xidma dana yomb ndaxte lu baree bari def nañ ko ci bitim réew lu bëree bari def nañ ko ci biir réew mi te ci bunt boobu lañ ko def mu mel ni xidmatam lu am solo la ci bakkanu taalibe bi ndax day tarbiya bakkanam da koy nàmm ci diggante bi ngeen fi biñ fi ñëwee ak ñi ñi fi nekk dëkk fi ak yow diggante bi nga fiy def war a dellu nga xiyaas loolu dégg nga xool ni jaww ji mel xool ci environnement biñ koy defee xool ni mu mën a toppatoowee doomu aadama ak ni mu mën a defaree bakkan ak ni mu ko mën a yéegee nga xam ne lu rëy la du jëmmi liggéey bi rek dem waaye liñ ci war a jàng ay njàngat yu bari la ci wàllu bakkan ci wàllu social ci wàllu social ci wàllu économie fenn fu ci nekk foo ko xool da nga gis ne Serigne Touba ba muy wax xidma lim ci lim ci laltaay bari na mbir la moo xam ne buñ ko toppee àdduna dana jag lépp dana jag dara du yàqu loolu mooy mbiru zahir yi nga xam ne ku ko xool danga ko teg bët waaye li ci sunu borom denc yowmal xiyaam diggee ko ci yool kenn xamul nu mu toll loolu yàlla rek moo ko xam ah, nga xam ne tam dana baax ñu leeral ndax wax yi dafa bari ñu bari dañuy wax waxukaay yi yomb na eh, nit kum neex mën nga tëju wax eh, télé yi bari na eh, dégg nga ñiy wax te xamuñu bari na boo ko defee dana baax dundalaat loolu xam ne xidma liggéey la boo xam ne sunu borom moo ko digle ndax doomu aadama lu lu gàtt gàtt war na jëriñ jëriñ moroomam te xam nga ne lii ngay def bu jëmul ci yow tamit directement ci sa moroom la jëm te liggéey ngir jëriñ keneen kat jaamu yàlla féetewu ko kaw am na ñuy wax ci téere yi ci xadiis yi ne nit ñi yàlla mooy moo leen moom ay njabootu suñu boroom lañ ki ëpp njëriñ ci ñoom moo moo ëpp njëriñ ci suñu boroom loolu nag buntu xidma buntu la ci boo xam ne nit ki lim ciy def ci njariñ la waaye njariñ la loo xam ne mën naa dox ba dellu si si moom sax mën naa dox ba del dellu ci moroomam te lépp lépp lu baax la ndax li tax leeral yi baax léeg-léeg nit ki bu gàttee xel walla e, e, e, eggut fenn ci cosaane ci wàllu yoon wi mën naa defe ne ah ñin kat li ñuy liggéey nii di ko jox sëñ bi lii nangam la lii bari na lii nangam fu mu jëm waaye day baax mu xam ne loola sax doyul sëñ bi dana defi pexe dolli ko ca dégg nga boy xidma moom it maanaam liñ xidma jébbal ko dana xidma lu ñu toll wala lu ko ëpp jébbal ñeneen kon nañ xam ne yoon wi mooy doxe noonu loolu cosaan la loolu jaamu yàlla la mu mu mu leer ci nit ñi ñu xam ko ba kuñ dégg keneen kuy waxe neneen nga mën koo tontoo tontu wu rafet dégg nga wa jaadilhum billati hiya ahsan nga nga yee ko bu fekkee yeewuwul ndax àdduna moo demee noonu daa am ñoo xam ne du ñu xam te dañuy wax eh, ngeen xam ne tam xidma yéen sama mbokk yi ci wàllum iraada iraada mooy eh, ku namu suñ boroom xidma eh, liggéey la boo xam ne liggéey coobare la liggéey coobare mooy boo xam ne nit ki da koy def te du tàllal xaalis ne jox leen ma waaye la ko ci suñ boroom dencal kat lu rëy la te ñàkk tàllal xaalis boobu ne ne jox leen ma ci coobare yëf yi day wëlbatiku ñëwaat ci kawam ndaxte boo boo xidma fii aw mbooloo ngi fi feneen mbooloo nga fa liñ fiy def mën naa wëlbatiku ñëw ci ñooñu mën naa doon sa njaboot mbaa sa jarbaat mbaa koo fi indi mbaa koo xam mbaa sa jëmm bu ko defee yooyu yëpp nag ki ko njaboote li ñëpp di def di ko jox ñooña wala muy delsi si ñoom loolu xidma la loolu mooy ngay liggéey ci coobarewu te yàlla tax liggéey boobu nag Euh, lu mu gën a selle gën a baax maanaam du du du puukare du yéem jëf ji du rëy gi dégg nga du du tuuti gi waaye la ca sell rek moo am solo yàlla suñu boroom mbiram moo demee ne lu sell rek lay jël ci ci liggéey maanaam am riir lu mu bari bari la la ca sell rek moo am solo kon nañ nañu sellal pas-pas yi bu ñuy bu ñuy waaj di ñëw bu ñëwee nañ ko sellal fii nekkin wi na sell dégg nga bu ñuy wax ak sëñ bi na sell lépp na doon ci ci yéene yu dëggu ndax ndax loolu mooy li nga xam ne moo ñuy jëriñ euh, xidma ba tey dafa nekk domaine bu yaatu boo xam ne neexut a jeexal ci lislaam dañ ci tudd ay misaal jël sa alal joxe ko ci la bokk ji ci yoonu yàlla di di ñaq ci la bokk ci yoonu yàlla boo demee ci téere tasawu yu njëkk yi di ko xool am na ñoo xam ne dañ ne sax doomu aadama am na loo xam ne bu ko defoon ci ñaawteef buñ ñaqalee ñaqaleeku yàlla gërëm lo yàlla far loola nga xam ne bu toogoon di wax ay laa ñoom noonu lañ koy waxee dégg nga mën naa mën naa bañ a dindi loola waaye bu ñaqaleeku yàlla gërëm loola far ndax ndax ngërëmul sunu borom kat lu rëy la da yàlla kum kum gërëm du la may di ko nangu kum gërëm gërëm na la te ku ne xam na ne ku ne xam na ne euh, euh, Serigne Touba ngërëmal yàlla la àndal ku ne xam na ne Serigne Saliou Mbacke ngërëmal yàlla la àndal te Cheikh Mouhamadul Mourtada bi mooy jëmmam mooy seen jëmm ya ci ñun kon loolu na ngeen ko fas bàyyi ko xel bu baax a baax bokk na ci eh, eh, eh, xidma di teel a jóg bañ a tàyyeel ndax nit ki bëggee am njariñ day day teel a jóg bañ a tàyyeel bana bañ a waaj mbirum tey di ko yóbbu suba loolu lépp ci xidma la bokk kon ci gàttal danga nga naan xidma mooy jaamu yàlla rek bépp jaamu yàlla bu sell dugg na ci ci biir xidma ñu déggee ko noonu ñëw gi ngeen ñëw ci tool itam sunu boroom lii xew lépp daan na xew euh, dafa waxoon ne ca jamono ya muy metti ci lislaam euh, faaw ñenn ñi di taxawal ñi ci des mu daal di joxe misaal ci ne ñi nga xam ne dañoo toog seeni kër te amuñu benn gàllankoor te te te amuñu ay lor dara teewu leen waaye ci coobare lañ tooge duñ yem ak mukk ñi nga xam ne dañoo laxasaayu jóg dem fa lu baax nekk di ko sàkku ndax ñi ñi ñi wuti ñoom ñoo raw ñi wuti wut donte ñëpp la yàlla di di fayit waaye ñi wuti dégg nga ñi wuti wut duñ leen dab loolu suñu borom da ko yaxal ci alquran kon na ngeen xam ne yéen bokk ngeen ci ci loolee bu yàlla dogalee itam ñëw boobu am ñenn ñi danañ ñëw fekk fi lu bari ñenn ñi ñëw fekk liggéey bi xaaj ñenn ñi ñëw fekk mu mu mat waaye ku nekk rek yéene ja ko yëkkati sunu borom noonu lay doxeek moom nomal innamal amalu binniyaat innamal amalu binniyaati dégg nga yéene yi mooy mooy mooy jëf yi nit ki bu bu bu bu jëf ji yeggut tam ji dana ko dana ko yóbbaale euh, bu loolu weesoo ñu wax ne euh, liggéey bi payam lu rëy la liñ fi jot a wax léegi dégg nañ ko sëñ bi tam maanaam bu ngeen gisee waxtu wi mu ñëw xam nga ne ànd na ak ak yërmande ànd na ak yërmande te yaakaar na am na ñu sàkku ay ñaan waaye jëmmi toog ak xool bët bëtu yërmande boobu moo moo ëpp doole lépp ndax aaju jëpp ci lay fajoo kon na ngeen bàyyi nga xam ne kon sëñ bi gën naa fedd li loolu nekk gii ngeen nekkoon ci liggéey bi di di liggéey nee na loolu day na sëkk walif ñaan mooy ñaan gi loolu moo ànd ak ñaan gi ànd ak ngërëm ànd ak si la ngeen yéene suñ borom defal leen ko loolu jeex ah, te loolu bayit yi ñuy bëgg a wax méngoo naag lii mu wax ak la eh, eh, sëñ Touba daan wax sëñ bi dafa wax ci xasiida ne eh, wa kullu man xadama ni aw zaara képp ku ma liggéeyal wala mu seqi jéego ñëw ziyaare ma fa najj waxafir lahu aw zaara na nga ko musal te te ko ay bakkaram kon de xanaa tàbbi nañ ci ci liggéey boobu mu mu waxaat ne mu waxaat ne ci xasiida geneen hada jazaul ihsaani lil xuddaam sëñ bi nga xam ne da payuk liggéeykaa liggéey ya kon yaa ngi daat ne waqdi xawaaija allazina daamu fi xidmati wa hab lahum maaraamu na nga faj aajo yi ñi nga xam ne dañoo sax ci di ma liggéeyal na nga leen may li ñuy sàkku xanaa kon méngoo naag bëgg-bëgg yi mu wax ne warzuquhum al imaana wal islaama wal fatxa leen may ngëm may leen lislaam ubbi leen may leen rafetal dégg nga ak wommatu jëm ci suñu borom mu mel ni kon dëppoo na sëñ bi wax ne wa jaazihim anni bil xufraan na nga ma leen jéggalal seeni i bàkkaar wa bil karamaati wa bil ridwaan na nga def nanga ma leen defal xotti baax defal ma xotti baax ci ñoom te te defal leen ngërëm daal ne wajzubuhum na nga leen ñoddi jëme ilal huda ci njub wal xayri ak yiw wasrifum ani rida ani ani ani ani rida wa dayf lépp loo gënamul dégg nga na nga soppi seen jëmm yi bu mu ko jublu lépp luy lore bu mu leen dëgmal buñ xam sax fu mu jaar mu wax ne waxfir lahum kulla laxan wa zan na nga leen jéggal mbóorante yi ak ak bàkkaar yi wahab lahum ma an salaahal qalb te nga defal leen xol bu yiw bu yëwén wa wa kun wa kun muinahum ala umuuri na nga leen dimbali ci bépp mbir mu ñu dugg rek na ci tàbbal ca ndimbal ak diini wa dunya moo xam mbirum diine la moo xam mbirum àdduna la madad duhuri diiru jamono yaakaar naa lii doy na sëkk kuñ ko wax ak li mu firndeel daal ne jëm liggéey bee ñaan gi xam nga kon tàbbi nga ci ci wax jooji ñu ñu daal di ne kon euh, lii ñu wax ci ay seede jële ko ci lenn ci xasaayitu euh, sëñ Tuubaa yi lu tuuti la ci li sëñ bi ñaanal te dig ko ñi nga xam ne dañ koy liggéeyal mu wax ne bayit boo xam ne bu daw yaram la ci loolu inna alladina saara'u li xidmati fa hum fa lahum ddiyaaru wastal janna ñi ñii nga xam ne bu ma bu santaanee liggéey ñu ñu ñëw def si ko ñooñu day am am nañ ay këri àjjana am nañ ay këri àjjana waaw am nañ ay këri àjjana loolu loolu euh, euh, ñaax la ak ak fàttali ak xam dayoowu lii lii ñuy def nu mu toll liggéey bu am solo boo xam ne li ma wax léegi nañ ko sellal kémtu lay kàttan ndax sell googu kat mooy tax ñu tàbbi ci liggéey bi ndax yàlla sunu borom moom lu sell rekk lay jël te ku ne xam na ne sëñ Tuubaa léppam lu sell la moo tax lu nit di def te te te te awut foofa dégg nga da koy nuru te du ko doon loolu yàlla nañ suñu borom musal musal ñu ci yéemu ak ak waru te te te te te te ñu jàpp jëmmi sëriñ bi xoole ko sëriñ Saaliw te te loolu ci ci tënku la tënku lañ koy mëne tënku ci ndigal yi bàyyi tere yi tënku ci ndigal yi bàyyi tere yi ndax yoon wu jëm ci yàlla moom du yoonu du yoonu fo du yoonu bànneex kese kese loolu man am na nag lu ci mën a fekk nit ci ay teraanga waaye na xam ne lu jëm ci yàlla yoonu ngërëm la te ngërëmal yàlla nag boo koy wut nag danga koy wut rek ngir jëmmi yàlla boo ko amee nag xam ne am nga ko ndax ñi yu njëkk ya sosoon eh, sosoon lislaam ñooñu ñooy bàyyi yoonu iraada ñooy bàyyi murid yi ci diine foofu la ñu war a teg suñu bët ñooñu la ñu war a xool lañu amoon ci ay teraanga am ko seen diggante ak seen boroom bu ko jombulu bu ko réylu na nga ci dem sa kémtulay kàttan ba leen yàlla gërëmeekat loolu moo indi tey jii ñun ñuy def lii ndax moo indi lislaam fii te kenn man sanna sunnatan xasana dégg nga ku wane yoonu mbaax ba keneen roy la ci ba kooka baax kooka kooku lu mu defati nga am ci sa tuyaaba doo ko yàqal du la yàqal kenn ku nekk di am te ku ne xam na ne loolu lépp daje na ci sëñ Touba daje na si keppaar gi kon maa ngi leen di soññ mbokki taalibe yi di soññ sama bopp ci nañu gën a góorlu gën a tege ci aw yoon euh, gën a euh, euh, feddali sunu ab jaayante suñ ko defee daal kon jaayante bi dana nekk lu dëggu ci ñoon te jaayante bi nag boo waxee baat yi baat yi baax na waaye jëf ko ba jëf ju nuroog baat yi lu am solo la jërë ngeen jëf asalaamaaleykum maa ngi sant bu baax sëñ bi dégg nga di la ñaanalaat nga yàgg fi te wér lool nga ñaanalaat mi ne ñëpp wax na fi mu Mouhamadul Mourtada yàgg te wér ñu ko ñaan mu yàgg ndax yàggam fi te wér lool ndamul lislaam la ndamul lislaam la sëñ bi wax na ni sëñ bi wax na ni li ci des moo ñu tàllal ndax nee na comme li ci ëpp jàll na li ci des rek mooy bu yi jàllee ñuy def siyaar benn benn bi rek ca Touba ñëw di ko siyaar benn benn ca Touba pour mu gën a yaatu waaye Mbàkke xam nga ne Daaru Minam gee ci sa tool yi la bokkoon li tax demuñu fa mooy dafa am daayira bu ñuy wax soldaaru Serigne saali wi ñoom ñoo fa nekkoon yu gedde yi ak Ngoore Ñang ak mbooloom ñoo ko liggéey docteur Souran it yabaloon na fi benn infirmier mu nekkoon feek ñun loolu rek laa fàtte woon Mbàkke kon te ñoo ngi leen di ñaan bu sëñ bi ñaanee waaw mooy commission communication bi nga xam ne Ndofane lan àndal ñëw fi Ndofane tur mu tudd Tawfekh production waaw jëwriñ sëñ Modou dafa wax ni ci ndigalu sëriñ bi tool yi sëriñ bay nekk kër la ci boori Mbour samedi lan jàpp dem fa ci ku ko man liggéey bi it ngóobub dugubu saaño la basi basi basi nag am na lu ñu ci wax kon kuy ñëw na nga indaale saako ngir ñu liggéey liggéey bi gaaw lañ ko jàpp gaaw bi ku ko man rek nga nga teew ca ku fa mënta fanaan si àjjuma bu samedi na la fa sept heures fekk incha allah na ñëpp tàllal te bu ñaanee ba pare na ñëpp toog may ko mu jóg na ñëpp toog reer bi pare na kenn dem te reeroo reer bi pare na mën nañu bëgg borom jannatul maxwa du bind ñu màggal Seex Murtadaam Seex Saaliw ndëggal ngërëm naa ko tëggal ku xotti baax ka tey fësal ci saaf galañ delloo njukkal Seex Murtadaam Seex Saaliw bu dee ku baax yeyoo nga way ku xotti baax mooy gën a yey xotti baax mooy gën a yey yow man ma way la tey Seex Murtadaam Sëriñ Saaliw ngir jëmmi Seexi Murtadaa way Mbakke yaa tax ñu may teral Cheikh Moussa daal seen saani woo na ñëpp def nii na magal suñu jàmbaar ga Cheikh Moussa daal yow de Mbakke yaa tax ñu may teral ay Mbakke yaa tax ñu may sagal fi ma jëm ñu tënk ma